Ah, sama gars yi xoolal fii ah, moo mooy tali bi dugg biir Saint-Lazare bu nekk juste ci miiru aéroport bi mu ngi euh, mu ngi jël ampleur ñu ngi woo sapeur mais mooy loolu waaw vraiment c'est c'est à déplorer dafa mel ne ay ay ay affaires yuy yuy takk di exploser moo fi nekk quoi mais sapeur injoignable sapeur moom injoignable c'est c'est catastrophe waaw dé dé euh, tàkk-tàkk bi dana waar te mu ngi mën mën naa mu jàpp kër yi ah. parce que wóoru mais sapeur moom c'est injoignable da nga leen di woo muy sone ça sonne dans le vide waaw lii moom doy na waar quoi eh sama gars yéen ku mën a déplacé wu mën ngeen a ñëw déplacé wu ah parce que am na benn school bu tudd Eta school waaw ci ci miiru aéroport bi moo Eta school ñoo ñoo jàkkaarloo jàkkaarloo ak Saint-Lazare quoi